li mu doon wax dama bëggoon d'abord gërëm monsieur Massali sant ko si geste yi def di ko wax ne ñu jot nañ ko na tamit ko soxlaa dëkk yi ba léegi ñu ngi am ndox soxla nañ dem pompe ndox moom mun naa sox am ndox soxla nañ ndox pompe ndox mi un peu partout donc moo tax dinañ ko jël dañ ko teg ci loxoy sax frontière yi ñu leen utiliser ko foofu mu a soxla di ko remercier di ko remercier fa di wax tamit lépp rek ñu ngi leen sàkku suñu Thiès waa dañoo ànd ci nga xam ne lu ngeen di jox rek si Thiès waa yi lañ koy delloo di ko sant bu baax si kàddu yi rafet yi wax tamit jëmale ko si ñoom jëmale ko si sama pompier yi ñu yegg suñu xol la ko di sant bu baax a baax di leen wax ne léegi jafe-jafe taxawaat na mais fas nañu si tamit taxawaat dañ si taxawoon si yeneen ak yeneen mais sànq surtout vraiment di sàkkuwaat si yéen rek ku si nekk taxawaat si Covid bi lañ daan waxtaane yàlla def na ñuy fekk ñu ko doon dañu ne mbir mi tam mën a laajee mobilisation populaire nit nekk ñu cee sawar képp koo xam ne daal nit ñi mën a taxaw allah. maa ngi gënal bi nga xamante ni notre vaillant et remarquable gouverneur moo ko jiite fii si Thiès ñëpp xam nañu pas-pasam. xarañam saa su nek pour saafara jafe-jafe askanu population wu Thiès di féliciter aussi au passage le colonel des sapeurs pompiers ñëpp gis nañu sen taxaway ci mbënd bi et autres li may def ni nak def ma ko ngir puukare def ma ko ngir dara ñëpp xam nañ né je un acteur politique ma japp né bu dara xewet ci dëkk mu leer ñu ne suñu borom moo ko wàcce mënuñu lu dul as tuut lu ñu am ñu dajale ko indil ko ñi nga xamante ne ñoo ko yellool muy administration territoriale parce que mënoon naa def une forte mobilisation comme ñu ko ñenn ñi di defee dem ba fu mbënd ba am joxe ko fo mën naa am sax nañ ko war a utiliser mu jaar yoon duñ ko def ma jàpp ne lépp yoon la war a am mooy ñan ñi fi toogal buur parce que waruñu xaar lépp jóge ci état bi bépp homme d'affaires bépp acteur politique moo xam nga nekk ko wala nekkoo ko suñ borom may la as tuut war nga mën a def ci population bi moo waral tey ñu indi fukki moto pompe pour jébbal ko notre vaillant et remarquable gouverneur pour mu teg ko ci loxo suñu ñi nga xamante ne moom la ñu yaakaar tey ak ëllëg bu jafe-jafe amee ci bi muy sapeur pompier yi moo waral ñu indi li tey jox leen ko parce que mun nañ ko jox suñuy responsable ñu bañ ko utiliser comme ni ñu ko war a mën nga jot ak nit sa buddu karta mu yore pompe du mais ñi nga xamante ne ñooy sapeur pompier ñëpp xam nañ ne askanu askan bi lañ fi nekkal boo leen ko joxee ni mu yellool ak nañ ko war a utiliser incha allah rabi nañ ko utiliser.